alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala alfaatihi alxaatimi sayyidina muhammadin naasiri alhaadi ila siraatillahi almustaqiim wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alaziim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 tey nekk ñaar fukkeelu yaa ayuha alladina amanu ak benn suñu borom subhanahu wa taala di ñu ci woo te woote boo gis dana làmboo ñett foo fekk woote dana am ku woote mu nekk al ki nga xam ne mooy woote waaye tamit foo fekk woote dana am ku ñuy woo mu nekk almunada waaye foo fekk woote tamit dana am mu muballigu nidaai mooy kay jotale woote ba kii woote kenn la mooy rabbul izzati wal jabaroot ña muy ñenn lañ mooy ña ko gëm kii mu jottale la woote bi ne ko lancel ma message yi nga tasaareel ma invitation yi kooka kenn la mooy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama boroom nag dafa am melokaano yoo xam ne boo ko melokaanoo doo mérito mu war laa woo yooya nag lay wax si nii ci téeréem bi dafa ci am melokaan bi gën a bon ku ko melokaanoo yàlla du la woo mooy naan katab sàngara nekk ca rekk ba nara a dee te tuubuloo ko waaye saa yoo tuubee réccu ko rek guddeeku ca rek bokku ci ñu yàlla di xoox moo tax yàlla ne xée yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla ñu ne ko labayka wa saadayka ya arxama rahimin mu ne laa bu salaata wa antum sukaara bu leen jegeeti julli gu màgg gii nga xam ne ku ca soobu ku ne yaa ngi wax ak man am nga ak man audience bu leen te bu fekk yéen a ngi màndi xatta taalamu ma taquluun ba du ngeen xam sax li ngeen di wax di kayang-kayangi di yàqaay baat loolu baaxut loolu dafay xajamal sama audience ak yéen buur bu day ni man may la audience nga nekk jaam bu xeebu bii jàllal bi ku jëf jëfe lu la gën a mën a xeebuloo ci naan sàngara ba sa xel mi fàddu ngay war a wax ak man di kayang-kayangi loolu duma ko nangu kon ku bëgg xam ak man audience bul jege sàngara te nag jaamab yàlla bi feeg mi ngi julli rek am na ak boroom bi audience moo tax saa yoo jullee si juróomi waxtu wi julli gu nekk audience bu boppam la bu suba bi bu tusubaar ji tàkkusaan ji timis ji gexe gi sama borom nag ne su ngeen bëggee bañ yàqule baa bu leen jege sàngara bii aaya ji benn la ci état bu sàngara yi ndax bi yàlla yónni yonent bi di wàccee ci moom alquran fekk na booba arab yi dañoo kare ci sàngara ni raw ni Sénégal yi kare ci ceebu jën ni Sénégal yi bëgg bëgg ceebu jën jamono ji yàlla yónni yonent bi di wàccee ci moom téere bii di alquran araab yee gën a bëgg sàngara sénégalais ci ceebu jën booba nag bu xëyoon rekk ne leen sàngara dafa xaraam bàyyi leen ko diine ji du bëri client waaye da koo def pare étape di leen won mbon ga ñu koy xamal seen bopp par benn di leen xamal mbon nga ni muy yàqee seen alal ni muy indee ak nooneel ci seen diggante ni muy yàqee seen ak bokk ni mu yàqee seen xel yi ni leen di wax loo wax yu dof bañ xamal ko seen bopp ñu mujj ngéejugu sax yàlla xaraamal ko ci ñoom moo tax dara bu bonee dangay fexe ba lu bon loolu rek ñu ngi ko bëgg a tere nañ ko xam buñ ko xamee xam lim leen di yàqal rek bu ëllëgee tere ga dafa yomb waaye boo xëyee rek wàcceeb décret nañ ñëpp bàyyi lii mu nekkoon lu ñu miin da leen di jafe-jafe rek moo tax yàlla kenn du moom ci xereñe kenn du moom ci xam nu ñuy jëflante ak ay jaamam moo tax bi mu ñëwee ah, yónni yonantu bi sallallahu alayhi wa booba sa araab yi nañ mel ki sàngara ëpp na moo tax aaya gi ki njëkk a wax sax dafa leen a ñaax tagg sàngara wa min samarati naxiili wal anaabi tattaxiduna minhu sakaran wa risqan xasanan bokk na ci xereñ ak yàlla ak eh, yërmandeem tàggat gi mu leen tàggatal ay meññant yooya ngeen mën caa nal sàngara di ko naan min samarati naqiili te mooy meññatam tàndarma jire ngeen jël ko xooj ko ba mu yàgg ngeen naan ko màndi maa leen ko defal booba aaya jooju mooy ki njëkk a wax moo njëkk a wax ci sàngara waaye foofa dafa leen ci ñaax booba daganoon nañu di ko mën a naan ñi demaat ba ci kanam mu won leen ne ko sàngara dañ la ko laaj wa yasalunaka anil xamri wal maysiri qul fihima ithmun kabir wa manafiu linnaasi ne ko yow yonantu bi de saxaaba yi danañ ñëw laaj si la waa Màkka yi danañ ñëw laaj si la mbooleem koo jamono xanteeg dana ñëw laaj si la lu lay laaj si anil xamri wal maysiri karta ak sàngara moom lan moo ci ne waaye nag buñ la ko laajee wax leen ne qul fihima ithmun kabir nekk na ci ñoom ñaar jëfandikoo leen bàkkaar bu rëy rëy rëy bàkkaar bu rëy am na ci carte yow ma koy def moo xam gañe nga moo xam gañewuñ la moo xam dama xoosat set baa ma daaneeg huit beeg yëpp ba nga daanoo yàgg na ba nga demee di jëndi carte rek nga daanu su ko defee kon naka noonu sàngara tamit naan nga mandi nga mandi wuloo bàkkaar bu rëy daanu na ci sa kaw qul fihima ithmun kabir waaye nag wa manaafiu li naasi am na njariñ su tuuti bu ñàkk-ñàkk solo njëriñ ga nag ala kulli haal ca sàngara mooy bañ koy bay waaye duhut jëmi naan nga jëmi naan nga benn njëriñ amu ca waaye xam nga tey bay gi ñuy bay sàngara gàncax googa ña cay liggéey am nañ cay njëriñ jaay gañ koy jaay ñooña xam nañ luñ cay gañee waaye jëmmi jëfandikoo gi moom léppam loor la benn njëriñ amu ci waaye koom-koom bu ñàkk solo booba nga xam ne moom lañ koy faggoo avant muy nekk sàngara ak après bu ko nekkee la ci aju kooku la nangu ci manaafiya ji waaye du jëmmi jëfandikoo ga naka noonu tamit karta lu bon la njëriñ la la muy tuuti tuuti njëriñ la suuti sa mooy boo gañee te boo gañee timit njëriñ googa boo ko comparé jàpp ne man gañe naa ay million safara la bu bu tegu ci say loxo xaalis bi fa muy jaar sax doo ko xam kon manaafiya jooju boo ko demee imaamu Qaradaawi ci fataawal muasira wax na ca wax ju bëree bëree bëree bëri ci firil ñu wa manaafiu li si jooja ak ci wàllu tijaara gaag yeneen ya ci xaju su ko defee nag kooku mooy deuxième aaya ci sàngara kon wan na leen mbon ga ca ne bàkkaar bu rëy ba ca ne ba mu waxee loola première état bi rek jullit ñi bëri ca lañ bàyyi ne ñun bàkkaar bu rëy ñemewuñ ko comme daal bàkkaar la rek ñun banañ qul fii maa ismun kabir la yàlla wax te boo waxee wa mu naa wa ma maanaam kabira wa ma naafixu kasira wa ma li naas rek ah ñun banañ ñenn ña gën a dëgër bopp ne waaye njariñ du tuuti njariñ kay moom du tuuti fekk njariñ la kat du wut jëmmi sàngara ja de du wut jëmm ji ngay sóobu ca karta ga de yooyu ma nga nekk ca avant mu koy doon ak après ja su ko defee nag léegi ñenn ñay continuer di naan ñetteeli aaya ja nag mooy aaya ji ma tiim yaaram yi dañoo baaxoo woon ku ci mos a tukki sa loxo jot sa gannaaw soo ñëwee da ngay rendi gàtt togg ay ñam xoo say mbokk say jege ñaale ñu ñëw lekk yàlla dogal nag abdurahman ibnu awf tukki ba mu ñibsee ren di xoolu ay jegeñaaleem pour ne nañu ñëw naan nañu ñëw maanaam xéewlu ci teraanga ji waaye ala kulli haal li Tirmisi solo jëlee ko ci Ali ibnu Abi Talib mu ne sanaa lana abdurahman ibnu awf taaman fa daana wa saqaana min alxamri fa axasat alxamru minna wa xadarati salaatu fa qaddimuuni fa qara'tu qul yaa ayuha alkaafiruun laa abudu ma taabuduun wa nahnu nabudu ma taabuduun nii la ko waxee de qaala fa ansala allahu taala hadihi l ayata ya ayuha alladina amanu laa taqrabu salaata wa antum sukaara xatta taalamu ma taquluun xadis boobu tirmisi moo ko solo mu bokk ci demee xadis bi boo ko bëggee gëstu demal nga seeti ko ci abu daawuda andi na ko ci buntab al ashribatu ca safha 3671 tirmisi yu andi na ko ci kitaabu tafsirul quran mu tolloog safha 3206 mu ne waaye nag ñu ne hadis bi daal hadisu xasan la waaye garib hadis bu tumuranke la waaye ñu ne an nag loolu lépp nag sahihun lu wér la kon xasanun garibun sahihun ndax ñu ci bëri tumuranke gi li leen ko yóbboo li ko ko yóbboo mooy àlliyu li ulamaawu siire solo mosta naan sàngara yonentoo ko yar te lii abdurahman ibnu awf nganam gi madinatul munawara la xewee parce que aaya ji mooy saar wi madina la wàcc <laughs> kon nag naka la yonent bi di mën a yaree àlliyu ba mu xëy dugg ci diine ji ak fi mu jaar ak saxaabaam yi ñu dem ba ma na madinatul munawara aliyu mandi abdurahman ibnu awfu ak mbooloo xam ma jiital ko ci julleg timis mbaa gexe muy jàng fatiha ba mu jeex mu teg ci xul yaayul kaafiruna di baaxi laaya ba tax yàlla wàcce lii aliyu moomu daal moom la boroom xam-xam yu bari ne naan sàngara musut cee jaar kon loolu moo tax xadis bi nekk garibun waaye lu ca mën a am daal bu xàlliw jiituwut tamit am na ca ñoom ku jiite jàng na waaye boo jëlee ci riwaayatu bii ma jox la nekk ci tirmisiw ak abu daawuda ñoom dañ na xàlliw ci boppam moo jiite ba mu jiitee mu ne ma jàng xul yal kaafiruuna bayi laaya aaya ja wàcc ne a yéen jullit ñi gëm yàlla bu leen naanati sàngara di ko jëfandikoo fekk booba jullee ngi jege gis nga yàlla de ni muy fajee ay malaatam mu jige nag ba cëgg yëpp que naanatuñ ndax boo julee tisbaar boo fa naanee bala ngaa ximali ko tàkkusaan jot diggante tàkkusaan ak tisbaar kenn naanatut fa tisbaar tàkkusaan ak timis diggante ba dafa jege boo naandee boo naanee bala ngaa ximaliku timis jot kenn naanu tut fa diggante timis ak gexe gën a jegeti kenn naanu tut fa ñaari waxtu dong lañ doon naan mooy gannaaw gexe ci guddi gi te am na ñu bëri heure boobu arrangé wul leen day fekk ñi xaajoowoo nelaw kaasi nelaw lañ gënoon a soxla ci kaasi sàngara ñenn ñi ña ca des nag bi naan waxtu woowa rek ñeneen ña buñ jullee suba ba pare diggante julleeg suba ba tusubaar distance bu gudd la ñi naan waaye foofa tamit ñu bëri dañoo bàyyi woon dañ nangoo naan ndax eur boobu ci la ñuy war a liggéey lu ñu war a dundee te bu ñu màndee duñ mën a liggéey mu yàqal leen lu ñu war a dundee ñenn ña bàyyi far côté heure boobu duñ fa naan kon daal daanaka ña ci desoon rek mooy li Nida euh, Atou Rahman wax mooy vagabond ya rek ñoo desoon ca ca sang sàngara sax ñi nga xam ne xamuñ liggéey xëy di poti làmp mën nañoo naan sàngara suba teel gi donte liggéeyuñ ñi nga xam ne tamit ñàkk nelaw guddi du leen wàññi dara ndax pare wuñ pour defi dara bu guddee tamit ñi naan kon gis nga bi yàlla wàccee aaya jëlee mu njëkk laa wax qul fii ma ismun kabir quantité bu bari bàyyi nañ waaye bi mu indiwaatee bii tamit ñi gën a bëri tamit gën a bàyyeeti waaye nag ñetteelu ñeenteelu aaya ja ba mu wàccee nag ca la ñëpp bàyyi fekk moom ak Ibnul Xattaab mi ngi sax rek di tàllal ay loxoom ne yow yàlla bayin la naafil xamri bayaanan saafiyan waaye yow yàlla yàlla nga ñu leeral ci sàngara leeral goo xam ne dana doy sëkk wala si ñuy laajati kenn dara ci la yàlla nag door a wàcce aaya ja ci yaa ayyuha alladina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal aslaamu rijisun min amali shaytaani fajtanibuhu laallakum tuflihuna maayida aaya 99 quatre-vingt euh, quatre-vingt-dix mooy juróom-ñeent fukk boo demee da ko ca fekk ca suratu Maayida ba laay jay jeex la yàlla ne fa alaantu muntahuuna laajtewul ndax ba ngeen de fa alaantu muntahuuna istifham bi maanaa amar mooy intahu baleen moo tax Omar mi nga xam ne ku dégg arab la bi yàlla ne fa alaantu muntahuuna rek ci la Omar ne yaa rabbi intahay naa waaye tekkiwut naan ndax yéen ba ngeen déedéet waxi loolu waxi caaxaan rek la la waa yene woon yàlla daal dañoo laaj ndax ba waxaatun waxantun déedéet wallaahi falantu mënta woon a tekkiwul ndax ndax ba ngeen am déedéet déedéet mooy baleen istifham ji bi maanaa amar la ndax loolu waxin wax ama xam balaax la yàlla di ko waxee su ko defee nag léegi saxaaba yi bàyyi sàngara booba daal mbooleem ñi dencoon ci seen njaq yi dañoo mujj sotti ko ci mbeddi madinatul munawara yi ay xat bu tawee mbedd yi day niin ngir ak bëri sàngara ci suñ sotti woon ñëpp seen denc yaag seen këll yaag seen yëpp ñu tuur ko ndax ñoom bu leen aaya dabee rek dañuy taxaw duñ ca tegati dara waaye nekkuñ fanaan naan cigarette dafa xaraam bàyyil ma tux ba paquet bi jeex may door a bàyyi wala sàngara si dafa xaraam bàyyil ma naan li ma yore ba mu jeex may door a bàyyi déedéet moom daal ca saasa la ñoom ñëpp bàyyi kenn naana tut ba yàlla ne falantu muntahu na mooy intahu rek anil xamri ñëpp banañ su ko defee nag tabaarakallaahu ñeenti aaya yi moo xam ci sàngara pare étape wa min samarati naxiili wal anabi tattaxisuna minhu sakaran wa risqan xasanan muy première ba ñaareel bi wa yasalunaka anil xamri wal maysiri qul fihima ithmun kabir ñetteel bi mooy aaya ji yaa ayyuha allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ñeenteel bi nag mooy innama al xamru wal maysiru wal ansaabu wal aslaamu rijsun min amali shaytaani booba nag la ñëpp ay sàngara wan ko gannaaw kon mooy ñetteelu étape ci sàngara ñu war cee jàngee doxalin ci suñu jëflante yi boo gisee lu la naqari ci sa doom mbaa mu naqari la ci sa soxna mbaa sa mbokk soo ko bëggee oo wax ko lépp ndoor ngeen yàquwante waaye dee ko par nànk rekk di ko nëbbu ba mel ni la muy def xamoo ko bu ciy gën di xew di dem ba xamal ko boppam moo koy baal boppam su boobaa mu neex a dindi waaye góor ga doom ja day tux di ko ko nëbbu daana dem sax ba bu duggee ci toilette bi di jëfandikoo boppam foofa lay tuxee xale bi dugg ci biir toilette bi rek soxla boppam bàyyi ja ubbi bunt ba fekk ma nga jonkan soxla boppam di tux mu ne ko ah ndeke da ngay tux mu ne ko maa tay ndax topp gee xëpp ba jéggi dayo foofa pexe jeex na dootoo ko ko mën a tereeti te xam na doole nekk ponkal kom yow waaye par nànk rek par nànk rek waaye li ma naqari lépp tey mu jeex tàkk ci sama kër gi soo moytuwul sa kër gee tas waaye dee ko dindi par nànk rek ci say soxna di ko dindi par nànk ci say doom di ko dindi par nànk ci say mbokk ba yàlla xëy jeexal ko wenn yàlla gën a xam mbon gi nekk ci sànkara ci mën a yàq halal ci mën a yàq bokk ci mën a yàq xel ci li muy yàq ci wàllu santé waaye par étape yàkkamtiwut wa min samarati naxiili wal anabi taxul ñi baax mu ne xaat yasalunaka anil xamri wal maysiri qul fi ma ithmun kabir taxul ñëpp baax yaa ayyuhal lazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara taxul ñëpp baax waaye keroog ba mu xegg ca ñeenteel ba won leen ko mbon nga ca ne innama yuridu shaytaanu an yuqia baynakum al adawata wal bagdaa fi l xamri wal maysiri wa yasuddukum an zikrillahi wa an salaati wallahi ba muy xegg ci falantu mun ta woon rek ñoom ñëpp ñu ne yaa rabbi intahay naa kon doxalin lu ama am solo la ku la ko daq ak doxalin wu rafet gën laa mën a yore njaboot gën laa mën a yore kër gën laa mën a déggoo ak ay bokkam gën laa amal njariñ ci pénc mi waaye borom xutar xutar joo gis tey mu xem fi tey mu dakk tey mu jeex du defar dara yàq rek lay mën a def sëy bu sëy bu yàqoo sax boo ko ca yóbboo mu gën a yàqu ndax dafay wax ne bu fi xamee neex te lépp loolu boo ko waxee lépp yàqu kon nañuy jàng yàlla ci doxalinam tabaarakallaahu buñ ko defee rek am jàmm kon aaya jàngook li mu njëkk a tere mooy jege julli fekk yaa ngi màndi loolu lépp mi ngi jàngale ñu seet na waxtu julli yu bari dafa jege ñu doxee ca baxi sàngara ba mooy ñaari waxtu yu gën a soree ya mooy gexe ba fajar ak fajar ba tusubaar foofa tamit ñu ci bari arrangé wut leen ñenn ñi nelaway tax ña soxlaatuñ naan ci guddi ga ñenn ñi subateel ga tamit liggéey baay tax pour war a dund soxlaatuñ naan mu wàññeeku lool moo tax bi beneen ñeenteelu aay ji ñëwee rek dafa maasale lépp farmat kenn du yàlla mu ne timit bu leen jegee julli fekk yéene ngi yore janaba bu ngeen yoree janaba bu leen dugg ci jàkka yi booba ñoom saxaaba yi seen buntu yi dafa jàkkaarloo nag buntu jàkka ji kenn ku fi nekk sa kër am na buntu bu mu ci buntu jàkka yi mu almadinatul munawwara ca dëkkin wu njëkk wa te léegi actuellement li jàkka ji e, e, jël équipé ko lépp moo tolloog lañ dëkkoon ñoom ñëpp ak yonent bi ak saxaabaam ya fa nekkoon yëpp moom mooy dëkkuwaay mooy palaasu jàkka ji léegi booba nag léegi léeg nit amee ba du am ndox ci këram bu ko bëggee wuti fokk mu traversé buntu jàkka ji ba génn ko door a mën a wuti ndox loolu nag xawoon a nekk problème ci ñoom yàlla ne ah kay kon nag su fekkee da ngeen a amee janaba amul leen ndox ci seen kër fokk ngeen génn te bu ngeen di génn fokk ngeen bëtt buntu jàkka ji dara nekkatut ci moo tax mu ne wala junuban illa abiri sabilin hatta taxtasibu su ko defee nag mu ne su fekkee da a feebar ba mënu leen jëfandikoo ndox mi ci sangu wala mënu leen koo jëfandikoo ci njàpp wala ngeen nekk ci tukki da ngeen a amul ndox carrément sax wala kenn ci yéen baxe ko ca wanag wa tabaarakallaahu amul ndox mu defaroo yére yëpp wala ngeen jonjoog jigéen ba xam lu génn ci yéen ñeenti bu leen ca mën a dal may naa leen seen laab ak ndox ga ngeen remplacer ko laabag ak tiim te ngeen yëg ne yéen rek ko xam xeet yi leen jiitu woon xamuñu woon tiim njàpp lañu xamoon ku ko amul da ngay xaar ba mën a jàpp fay sa waxtu julli waaye man jàppandal naa leen bu leen ñeent yi gaaree dem leen ngeen tiim ne wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alxaaiti aw laamastumu nisaa fa lam tajidu ma an su boobaa kon fa tayammamu saidan tayiba kon dem leen ngeen tiimi yéen rek ko xam nu ñuy tiime yow yàlla mu ne fam suhu bi wujuhikum masaa leen seen xarxaram yi ca doorin wu njëkk wa dóoraat doora masaa wa aydiyakum seeni loxo su ko defee muy ñaari dóorin bu njëkk ba xarxaram ba bu ñaareel ba loxo ya inna allaha kaana xafuran inna allaha kaana afuwan xafura yàlla daal bale xaa kon la waaye ko mën a jéggale la seetil aaya ji suratu nisaa yi aaya 43 mooy fukkee ñaar fukkeelu xooteeb yàlla ak benn di an nidaaul haadi wa ishruun ci yaa ayyuha alladina amanu la taqrabu salaata wa antum sukaara xatta taalamu ma taquluuna wala junuban illa abiri sabilin xata taxtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadu minkum min alxaayiti aw lamastumu nisaa fa lam tajidu ma an fa tayammamu saidan tayiba famsaxu bi wujuhikum wa aydiyakum inna allaha kaana afuwan xafura 43 suratu nisaa kon aaya jàngoog li ci njëkk dafa tere ñi jege julli fekk ñi ngi màndi tere nañu ñu jege julli fekk dañoo amee janaba wala ñuy dugg jàkka fekk dañoo yore janaba lu tul ñu sangu bu ñu yoree janaba wara yore wuñ ko amuñ ndox muñ sangoo ca janaba ja wala amuñ ndox mu ñu jàppee bu janaba xamut ndax dañoo tukki amuñu wala ñu baxee ko ca wanag wa amuñ ndox ma wala ñu jonjoog jigéen ñi xamuñ ndox muñ sangoo ci léeg-léeg yëpp yàlla nee na jagleel naa leen yéen xeetu yonantu bi te yéen rek a ko xam dem leen ngeen tiimi masaa seen xarxaram ya masaa seeni loxo ya ba ca tikku njarayee waaye masaa xaale ko ba ca conc ya su ko defee boo xamee janaba nga yéene ko ca dana ko mën a yóbbu xaale muy toj mu mag mi dana ko danga ci mën a yéene xaale ci laab gi boo xamee toj mu ndaw nag muy xadas rek xadasul asgar tiimal da nga mën a julli loolu maa leen ko buuñaa yéen xeetu yonent bi comme ni ma leen buuñaa julleeg jumaa yéen rek yéen a ko xam yéen rek a xam fu leen neex ci kaw suuf tamu laab rek jàkkale man ngeen faa julli muy juróom yonent bi taxaw ne man kenn la ko yàlla jagleel waaye xeet ya ñu jiitu woon amul kenn koo xamee ne nii amoon nga ko ca moo tax daana taxaw moom yonent bi ne jox nañ ma juróomi yëf yoo xamee na ni xeet ya ma jiitu woon amul kenn koo xamee na ni am nga ko ca man kenn dong maa ko ci xam juróom yooya yàlla defal ko ko mu waxal ko boppam tiim ci la bokk tabaarakallaahu jullig juma ca la bokk xamee ngelaw loo xam ne bu uppee doxab weer ku fa nekk di ab noonam yaa ngay parpari daw ca la bokk waaye tamit fu ko julli fekk mu mën a julli suus lépp di jàkka ca la bokk daganal ko moom ci boppam ak yaay saxaba mën a lekk màng ak yaw xeetam jox ko ramm bu yowmal qiyaamee muy safaatul kubra juróom yi nee na man kenn ko am moo ko waxal boppam utiitu xamsan lam yu'tihunna ahadun qabli nusirtu bi ru'bi masirata shahrin wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran fa ayuma rajulin min ummati adrakathu salaatu falyusalli wa uxilat lil ganaimu wa lam taxil qabli wa utiyat wa utitu shafaata wa kaana annabiyu yubasu fi qawmihi xaasatan wa bu'ithtu ila nnaasi aamatan xadis boobu Buxaari yoog muslim yëpp ñoo ko bokk andi Buxaari yoo ngi ko andi ca buntab tayammum ca safha 335 muslim andi ko ca buntu almasajidu ak place yi ñu mën a jullee ca safha 521 boo demee da nga ko ca fekk. kon juróom yi ñu ndekk ko am. te kenn mayut ñu ko kudul yàlla. baaxee ñu ko ci baax ak suñ kilifa gu baax gi di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon jullee ngoog tere nañu boo màndee bul jege julli ndax dafa dëppoowul nag wax dëgg yàlla xel sax dafa nanguwut loolu xel dafa dul nangu nga ne yaa ngi diyaale sama borom fekk yaa ngi màndi lu ko waral day eh, eh, boo demee benn boroom xam-xam bu mag tabaarakallaahu dafa daan wax ne ku bëgg di wax ak yàlla demal nga julli soo jullee rek nga yëg nga ñàkk yëg yow ci sa bopp yaa ngi wax ak yàlla waaye mu ne boo bëggee nag yàlla wax ak yow bul sonn demal nga jàngi alquran soo jàngee alquran rek yàlla ci boppam mi ngi wax ak yow yow nag mënoo wax ak yàlla fekk jamono ji ngay wax ak yàlla yaa ngi màndi te wax ju réy jooju sayduna xasan radiallahu anhu moo ko daan wax man araada an yukallimuhu llahu taala fal yaqra il quran wa man araada an yukallima allaha taala fal yadxul fi salaati su ko defee nag kon fa kayfa yukallimu laa abdun sakaraan jaam bu màndi nu mën a waxee yàlla man ta nekk moo tax yàlla tere la boo màndee bul jege julli man ta nekk kon nag bi ci tegu tamit ñaareel bi julli ku koy def dafay laaj nga toroxlu wàcce sa bopp toroxlu xommatu say cër booyal sa làmmeñ ci tudd yàlla ak sàbbaal ak sant yàlla waay waay waay waay ku mandi xàmmeewul jant bi ak weer wi xàmmeewul yaayam ak baayam naka lay mën a sàbbaale yàlla ak di ko sant di ko bakk ak naka lay mën a toroxloo mën naa mandi ne ma ngay rukkooy far dem tëdd mën naa dem ne ma ngay sujjooti far di fecci man ta nekk inna salaata yambagi fiha al xusuu man tañ ma loolu nag xusuu googu munta ànd ak fekk na yow da ngaa màndi moo tax sayyidatuna Aïcha mooy wax ne yonent bi daana wax ak ñun ñuy wax ak moom waaye daal bu julli teewee rek fay mel ni xamuñ ñu ñun tamit xamuñu ko taqulu sayyidatuna Aïcha kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhaddithuna wa nuhaddithuhu wa yukallimuna wa nukallimuhu fa idha hadarati salaatu ka annahu laa yarifuna wala naarifuhu bu julli xasee teew rek fay mel ni xamatuñ ñi ñun tamit ñu mel ni xamatuñ ko nga jël xaatim xaatimul asam dañ ko daan wax ne ko waaw nooy def ak yow boo duggee ci julli kayfa anta ida daxalta salaata qaala ida daqa salaatu jaaltu ka annal kaabata amaami mu ne man daal su ma taxawee ci julli fay mel ni kaaba dañ koo samp sama kanam dañoo samp kaaba gi sama kanam wal mawtu waraa i fay mel ni dee fa ma féete gannaaw wal jannatu an yamini fay mel ni aljanna fa ma féete ndeyjoor wan naaru an shimali dafay mel ni safar dafa ma féete càmmooy wa siraatu taxta qadami day mel ni siraat biñ war a jéggi mi ngi ci sama roon tànk ma koy jéggi fekk tamit mi ngi mel ni wallaahu ma muttaliun alaya day mel ni yàlla mi ngi may yër may jàkkaarloog léppam su paree nag mu matal rukkoo ya sujjóot su suma atimu rukuuaha wa sujudaha fa ida salimtu la adri su ma paree nag ba nga xam ne sëlmal naa xamatuma dara moom daal ndax delloo nañ ko yëpp kon nii la daan xaatimul asam gisee woon julli dana mel ni kon alaabidu suufiyu ba nga xam ne dafa amoon góom ci tànk di góom ak deexaale faj faj mu të ñi xamal ko dagg rek doom ja ñu ñuy def ba dagg ko mu ne sama papa daal bu ngeen bëggee dagg tànk ba bàyyi leen ko rek ba muy julli moom bu xasee nekk ci julli xamatu dara fi góor gi ru ko waxee su jur rek ñu dagg tànk ba ba muy jub di taxaw rek daanu ñu ne waaw lii nag ñu ba mu sëlmalee ñu ne lan la mu ne ah bi ngeen ba ngay dee sujjóot ci lañ dagg sa tànk bi mu ne man kay yëg naa lu mel ni ay caas yuy xasaw yuy mu ne ko booba lañ dagg sa tànk bi te yëgu ko kon ñoom bu ñu xasee yëg yàlla bànneex bàyyi tax dootuñu yëgati dara googa nag mooy euh, salaatul xaashiin te julli googa rek moo jara dawal mooy julli ragal yàlla ña julli googu lañ soxla ki jullit mi ko julli waaye julli goo xam ne dóor naa ko rek ba mu daanu génn naa ca def ko jullee cobu ganaar góoru gëléem jonkanaayu bawkat cobu ganaar mooy sujoot sa cër ya dalagul nga sujjootaat rukkoo siggi dalaguloo dem sujjooti julli nga yàqu na jërul sonn danga war a rukkoo ba sa cër yi dal bañ mañ laa foto nga taxaw ne sami allahu liman hamida taxaw fa ban mañ laa foto nga root ban mañ laa foto nga toog ca diggante ba ban mañ laa foto nga sujjootaat bañ man laa foto nga door a jug taxaw noonu ngay defee julli gi mag ñu bari seen julli yaa ngi yàqoo ci diggante ñaari sujjóot yi ak gannaaw bi ñu bàyyee ko ci rukkoo jëm ca sujjóot bu ñu rukkooyee daal bala ñoo taxaw rek dañuy gaaw profitoo dem sujjóot yi julli nga yàqu na jurul sonn waaja ko defoon ca kanam yonent bi julli ñëw yonent bi ne ko demal mi ngi mel ni julli woo mu demaat julli ñëw mu ne ko mu ngi mel ni julli woo mu ñetti yoon mu ne ko doon suma julli ba dee nii laa mën a jullee mu ne ko kon da nga julli ba dee doo xam génn julli gu baax wan ko nañuy jullee dangay jàng dangay taxaw kabaar wan ko kabaar ya jàng fatiha jàngaw saar rukkoo ba cër ya dal nga siggi ba taxaw doora a ba sa cër yi dal nga toog foofu ba sa cër yi dal nga sujjootaat ba sa cër yi dal doora a indi yeneen rakkaa ya des ke julli ga julli googa la yàlla soxla nañ ciy bàyyi xel looy dawali xamoo ko kon nag bu yàlla soxla jox ko temps bi ba mat sëkk nga door a dem ci leneen julli bu xasee taxaw loo taxawal ci dootul barkeeti nañ ci bàyyi xel sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waxoon na ko taalibe ca sàkket wa sàkket waxtu wi jot rek ca njaareem ñi continuer sàkket ba a profité gis ne moxtaar mi yaatu na buñ paree julli mu dem julli ji ba pare fekk leen ci sàkket wa mu ne yéen leen tere woon a julli ñu ne ko mbàkke dañoo bëggoon na mottali sàkket wi rek door a julli ndax yëg nañ ne moxtaar mi yaatu na mu ne leen waxtu julli bu xasee jot lu nit defati ci liggéey dootul barke ba ñuy nodd waaw fu ngeen tolloon ñu ne ko fii mu ne ràbbi leen lépp ngeen dem julli def li ngeen defaatoon ndax keroog ba waxtu wa taxawee la ngeen defoon lépp ba barke dàqu na ca su ko defee ñi ràbbi ko dem julli ji ba pare ràbbi ko doora a ràbbaat lañ defoon kon nag loolu lu jar baxi xel la dañ koy jàngat te di ko baxi xel di ko rafetal gu mag di ko sàmm su ko defee kon nag manoo deeyaale yàlla fekk yaa ngi màndi manta nekk manoo wax ak yàlla te fekk yaa ngi màndi manta nekk kon nañu sori loola bu baax a baax waaye tey am na ñoo xam ne buñ màndiwut ci sàngara timit ba ñuy kàbbaar day dugg sa julli ga ña nga màndi ci ay soxla ñee nga màndi ci ay problème yàkkamte na ñoo sëlmal ba dem defi loola am na koo xam ne ca biir kabaar gaak julli ga ca lay xalaatee lam doon jëflanteeg ca commerce ba waaja def na ko kabaar sëlmal rek euh, poñe client bi ne ko weccat bi ma la jox dafa hëpp ci biir julli gi laa ko fàttali ko ne hëpp na ñaari junne delloo ma ko xam nga ne kooka julleem ko doy na waar moo tax julli gi gën mooy julli ba sëlmal sa xel mi àdduna mu sut cee ñëw gane si ko moo tax booy julli sa xel mi xalaat mbiram àdduna yàqut julli ga waaye wàññi na yool ba buñ la waroon a fay cent ci boo xelaatut mën nañ laa fay soixante mbaa soixante-dix saxaaba yi mos nañ leen a tegal téeméeri gëléem ne ko mën a julli ba sa julli gi jeex xalaatuloo dara lu jëm ci àdduna yaa moom ñoom nag kenn du ca kàcc dëgg rek nitu dëgg lañ Aboubacar julli xelaat Omar Seydina Ousmane Seydina Aliou ku mel ni ñoom Omar ak Seydina Ousmane ak Aliyu ñenn ña premier raka ñi deuxième ñi troisième Aboubacar ma ca gën a jekk jàmbaar moom xelaatu dara lu dul da muy taaya taaya bu mujj ci la door a xelaat musalmal yaa téeméeri gëlëm yi foogoon naa danaa ko moom dafaa mënuma ko moom loo xelaat mu ne ba ma demee bay taaya taaya bu mujj daal la sama xel daj ne téeméeri gëlëm yi suñ ma ko joxee fu ma leen xeew kon nag man mënuma ko moom bu doon tay nag jamono ji ñu yàlla xew da ngay julli ba sëlmal ñu laaj la nga ne xalaatuma dara lool ku ca man dara sa diggante yàlla rek moo ci xam dara waaye ñoom duñ fen lépp yàlla lañ cay jiital kon jullee ngoog waxoon naa la ni ñu ko yàlla diggalee ci juróomi xanam ya waxaloon naa la ko ci yaa ayuha yi nga xam ne jiitu woon na ca digal ni nga nañ ko wattu ci xaafisu ala salawaati digal nañ ko taxawal wa aqimu salaat la waxut qiyaamu salaati iqaamu salaati la wax taxawal julli nag mooy dema dem ba julli génnee la ci lépp lu bon booy julli kat doo sàcc doo fen doo njaalo doo naan sàngara doo lekk li jàmbur lépp luy lu bon kenn du la ko gis doo jëw waaye di def julli te dàq def yooya kon yow taxawaloo julli iqaamatu salaat la yàlla digle su ko defee kon nag digal nañu tamit nañ ko defee ca mbooloo ma ci war ko ma digal nañu nañ ko def ànd ak laab ak ndox yaa ayyuhal lazina amanu iza qumtum ila salaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi waaye digal nañu tamit tabaarakallaahu nañ ko def ak ak ak ak toroxlu kon mbooloo ma ñëw na wattu ga ñëw na toroxlu ga tamit ñëw na yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel mu ne bu leen jege julli nag fekk yéen ngi yore janaba ah baata junub ismu jamoo la wala bul na mbooloo wala bul na mbooloo wala bul na kenn wala bul na timit tabaarakallaahu ah, góor wala bul na timit jigéen bam ne rek ah maanaam yaa la taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taxlamu ma taqulun wala wala junuban junub jooju bu doon kenn loolu ngay wax buy ñaar loolu ngay wax buy jigéen loolu ngay wax buy buy mbooloo timit loolu ngay wax yastawi fihi alwaxidu waljamu wa zakaru wal unsa li ko ismu jamin la ismun ismu jamin la jara jaral masdari ismu jamoo bu taxaw taxawaayu masdar la su ko defee nag yàlla ne bu leen yoree janaba bu leen jege julli janaba nag ay xeet la dafa am ay sabab yu koy génnee bi ci njëkk mooy génn ak mëniyu mëniyu saa yu génnee ci xeewu mbaa ci nelaw te ba muy génn dafa lëkkalikook bànneex sa yaram wi yëg ko alaa kulli haal far forsu da ngaa war a sangu janaba moom la yonentu wax ci xadis boo xam ne abi saïd al xudri moo ko génnee yonentu bi ne almaau min almaa yi almaau bi maanaam alxuslu bil maa min almaa yi ay euh, maanaam sangu ci ndox lu koy waral mu ne génn ak mën yu kon daal fu mën nañu génnee di ndox rek war nañoo wut ndox sangu mënut ñàkk waaye nag na fekk génn ga nekk génn ak baaxoo nekk génn goo xam ne dafa lëkkalikoog bànneex ne moo xam ci nelaw la moo xam ci xeewu la su boobaa far farsu da ngaa war a sangu janaba waaye bu génnoon ci lu duur anam ak baaxoo ak ci lu a anam ak bànneex doo sangu dara kuñ doon dóor ba mu mën na yomb génn day raxas kanamam rek dem jàppi julli mais du sangoo ku ñu tàggee mbokkam mu tiit mën na yomb génn day dem rek raxas kanamam jàppi julli kuñ sotti ndox mu tàng mën na yomb génn naka noonu tamit day dem rek mu raxas kanamam jàpp julli waaye nag ci xanam ak wér ak ci xanam ak baaxoo ci lañ lañ wax waaye bu dul yooyu bu ci dàqoo borom du sangu loolu dal na tabaarakallaahu génn góor goo xamee na nii mu jaayi tey nettali mu ne ñun mbooloo xam Ibnu Abbas dañoo toogoon def jéew ci jàkka ji taawuusa nga ca Saïd ibnu Jubayri nga ca Ikrimatu ma nga ca Ibnu Abbas muy suñ kilifa dafa doon julli génn góor baxe koo fu sori ne ñu man dama leen di laaj hal min muftin ndax xam na mufti bu fu nekk man maa tontu fa qul naa sal ñu ne ko laajal mu ne man mii daal fa qaala inni kullu ma bultu tabiahul maawu ad daafiq saa yu ma tuuree ndox tuur wa ndox rek dafay xam ndox muy jañu muy génn ci sama kanam ñu ne ko xul naa allazi yakunu minhul walad ndox ma ma cay génn mooy doom ndox may doom ji sosoo mu ne waaw waaw mën ni génn de gannaaw bi ma sawee ba pare ma leen laaj ndax damay war a sangu janabaam wala lan moo ca war ñu ne ko dangay ngay sangu ju janaba alayka alxuslu Ibnu Abbas fekk mi ngi julli xam na ne ñii li ñu tontu jubut mi ngi yàkkamte ci julli ga dafa sëlmal rek ne leen xikrimatu li ngeen tontu waa ji jubut foo leen ma waaja comme dem na ngeen dem demal dabi ko balaa sori xikrimatu dem dabi ko waaja ñëw taxaw ci kanam Ibnu Abbas Ibnu Abbas ne leen li ngeen ko tontu da ngeen ko gis ci alquran ñu ne ko déedéet mu ne ndax da ngeen ko gis ci hadis yonent bi ñu ne ko déedéet da ngeen koo gis ci jëfi saxaaba yi ñu ne ko mu ne ko déedéet mu ne kon lu tax ngeen koy tontu yéen daal lii ngeen def mooy la yonent bi waxoon rek nag faqihun wahidun ashadu ala shaytaan min alfi abidin benn faqihu rek moo gën a tab ci saytaane laaw junnee jaamukatu yàlla ibnu abbas ne waaw yow mii di ma di laaj ne boo tuuree ndox mën niyu day génn sa kanam ndax jamono ja muy génn yëg nga bànneex atajidu sahwatan fi qalbika yëg nga ci bànneex ci sa xol qaala laa waa ji ne ko déedéet mu ne ko ndax yëg nga jéegoo ci dara mu ne ko déedéet mu ne kon demal nga raxas sa kanam dong te jàpp waaye sangu warub ci kon mën nañu saa yu génnee ci lu duhut xanam ak baaxoo duhut xanam ak bànneex duhut xanam ak wér boroom du sangu day raxas kanamam rek te dem jàppi waaye tey nag jig nit ki fekkoon ne dafa joteeg soxnaam ba pare mën na yoom génnut gannaaw si gi mu toog mën na yoom a dóor di génn aa ah, su fekkoon ne sangu woon na gannaaw ba mu bàyyee ko ke soxna sax dootul sangooti sangu mooma rek mën naa yóbbuwaale mii dafay dem mu raxas kanamam rek dem jàppi waaye su fekkee nag sangoogutoon far far su mu dem sangu ji waaye joteeg sa soxna ma niwu génnul nga sangu ba pare toog sa mën niwu door a génn dootoo sangooti demal nga raxas sa kanam rek loolu la fuqaawu malik yu noy gëm demal nga seeti ko ci muqaddima demal nga seeti ko ci misbaawu saalik demal nga seeti ko ci muwatta bu imaamu malik ñaareel bi tamit booloo muy jimaa góor ak jigéen saa yoo xamee ne jonjoo nañ seen ñaari awra ya moo xam da nga awray bàyyi ma sangu jël awraay ko dee sangu jël awraay koy dund comme xam na rek far force jojjoogi boo xamee far force nga sangu li ko tegtalekat mooy Saïd mu Musayyab moo wax ne Abal Moussa al Ashari yu moo wax Aïcha ne ko man de dama lay bëgg a laaj ay laaj waaye damay xam kersa Aïcha ne ko laajal bul xam kersa man sa la laa sal wala tastahi fa innama ana ummuka mu ne dama lay laaj ah, ani rajuli yaxsha wala yensin jigéen googu nit ko góor gu ñëw dikkal soxnaam booloog moom waaye nag génneewut benn mëniyu ndax dana sangoom du sangu mu ne ko waaw waaw day sangu de ndax ma dégg yonantu bi ne ida asaabal xitaa naani faqad wajaba al xuslu ida wajaba ida asaabal xitaa naani faqad wajaba al xuslu maa ko dégg yonantu bi wax ko mu ne ñaari xarafuwaay yi suñu jonjooxoo rek sangu war na ca kooku hadis bu wér la demal nga seeti ko ca imam ahmad waaye yaa ngi koy fekk ca safha 2400 maanaam 4 ca nga koy fekk ca safam ba da nga ca fekk kon boobu mooy janaba kooku kon mooy dana waral sangu sang muy booloo gis nga yàlla kenn du moom yow bu fekkee da ngaa dugub place booba rek ngay raxas boo tuuree ndox place ba rek ngay raxas amul sangu waaye soo génnee maniyu sa jëmm ji lépp ngay sang lu ko waral parce que boo tuuree dugub place bi nga tuuree dugub rek moo ko yëg mooy dem wanag bu fekkee da ngaa tuur ndox place bi nga tuur ndox rek a ko yëg waaye nag maniyu buy génn sa jëmm ji lépp koy yëg si di di yëpp dana yëngu looloo waral nag ñu ne la demal nga sang sa yaram wi yëpp ndax lii génn ci yow di ndox mi yaram wi yëpp yëg nañ ko moo tax lislaam sant ñu ñii sangu ci janaba tey wesu ci am saw ak defaru tamit boo demee wanag su ko defee kon nag janaba ngóog saa yoo xamee ne mën yu génn na sangu jil soo jaxasoo ak jigéen mën yu génn naam génnut sangu jil yow jigéen gi may déglu sa direeti reegal bu daggee sangu jin yow jigéen gi may déglu sa direetu gësin bu bu dee bu bu daggee demal nga sangu ji waaye tamit yow mii di ma déglu boo amee néew mu dee na nga doon sangoo janaba nga koy sangee ku tuub dugg ci diina ji dem leen mu sanguji nii muy sangu ngay sangoo janaba lay sangoo yooyu yëpp ñu jàngal ko ko mën naa xam ñu bindal ko ko ci mu dugg ak moom ci ci ci ci biir wala leen kenn nekk ci biti di wax ak moom ne ko raxasal sa kanam bu paree fëgg foofu toilette kenn du wax bu paree nga ne ko raxasal sa kanam mu ne pare naa jàppal njàppal benn benn loolu yëpp ci ay piscine ba lépp pare su ko defee ñi dicté ko ko lépp ba xam ko. kon nag janaba ngoog juróom yi ku mu gaaree ab jullit war naa sangu-sangu mu mel nii sangu ma nag raxas loxoom yi ca biti ndox ma ba mu set wecc yonent bi sa loxo yi xamuñ fu mu fanaan. nga raxas sa kanam ba mu set wet ci yow góor ak jigéen gi raxas dooray sa jumbax ba ci say bët woom kanam ak gannaaw ba mu set wecc bu ca benn euh, lu toll ni ba mu nëpp sa ñàkk a tooy nga jàpp njàppal benn benn korokoroy nopp ba masaa ko laalale sa sa loxo yi ndox bu ko defee jaarale ko ci sa kaw bopp bi kanam gannaaw turu yëpp mën a tëju nga door a sa ñaari loxo yi ba mu fees tàpp ko ca defaat ko ba muy ñetti yoon mu tooy xepp nga wàccee wàll ndeyjoor gi yóbbuwaale ŋaam waag ker nopp baag nopp ya yóbbuwaale mbagg maag poqataan yaag legg yaag xuru gannaaw ya ah, yóbbuwaale lupp baag ba ca yeel ya ba ca dajoor ya nga def càmmooy ba noona su ko defee nga doora a nag mottali tànkab ndeyjoor a tànkab càmmooy sanguma mat njàpp la mag boo laalaatu sa kanam gannaaw njàpp mën ngaa dem rek nga julli ji directement kon loolu la ñuy sangoo janaba xam naa boo ma toppee suba nag danaa dugg ak yow ci janaba ndax wax naa la kon aaya ñaari kaaj la bii dafa ñoo tere ñi buñ jege julli fekk ñu ngi màndi beneen bi dafa ñuy tere bu ñu amee janaba di dugg jàkka wala ñu ne ña ngay julli suñu xamee ngànta nag tabaarakallaahu ah, mën nañoo koo remplacer tiim te loolu ñun ñëpp rek ñun rek ñoo ko xam suba ci waxtu bi la doon incha allahu wa aqib dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu